dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum février atum 2019 dalee nag jàmm ci xibaar yi ñeer campagne électorale bi li ci gën a fees bokk na ci Idrissa Seck mi nekkoon foofu ca Dagana moom nag ma ngay jaajëfal ñi faree ci parti démocratique sénégalais ak ay ñooñu Khalifa Sall Ousmane Sonko ca Kédougou moom nag nee nañu def war nañoo def rek lépp ba dëkk bi daal di sukkaliku Macky Sall mi ngi woon foofu ci Fatick moom nag mbooloo mu takku moo ko fekk Macky Sall dëkk boobu nag la cosaanoo internet bi yi nga xam ne mi am ginnaaw démb ñi wote woon tey Ahmed Saloum Dieng daat nay woote nit ñu gën a defal seen taxawaay xool rek seen doxalina ci li ni mel ñu dikk ak yéen ci yaatal gi li ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi Idrissa Seck nag moom mbégte la am te ñi nekkee ci parti démocratique sénégalais ak ay ñooñu Khalifa Sall daal nañ koy teeru foofu ca Dagana moom nag ki nga xam ne mooy Omar Sarr nekk parti démocratique sénégalais mi ngi woon ci boobu ndaje kii di sa Seck moom jaajëfal nañ leen bu baax bu faal ak El Hadj Kane ñooñu fa teewaloon. On peut conclure que Dagana a déjà choisi dès le premier je pense que li ñu gis fii tey li muy firndeel mooy populations du Sénégal condamne la politique désastreuse du gouvernement sortant bilan bi mu fi def bilan rekk mooy ku mu ragal daal xam ne adversaire politique am nga jéem na laa sàkkal pexe j'ai bien apprécié l'accueil exceptionnel des partisans de mon frère et ami Khalifa Ababacar Sall Saliou Sarr est le représentant. mais, j'ai également apprécié l'accueil exceptionnel de la famille politique qui m'a vu naître, le Parti démocratique. njiital coalition Sonko président moom nag jóge na ci Tambacounda dem fi nga xam ne mooy Kédougou dina waxtaan ak askan gi fa nekkee usman Sonko nag gis nañu ne état bi wax naa def rek lépp li wax ngir dëkk bopp ñu daal di koy suqali ñu déglu ay kàddoo ak Abdoulaye Dione ak Ali Diallo. dem na ba Sénégal ku bëgg sanctionner un fonctionnaire li nga ko wax mooy je vais t'affecter à image boobu. lañuy wax ci Kédougou te nag dañu wax ni weddi gis bokku ci ndax ñoo doxal suñu bopp ba dugg biir Kédougou suñu nee Kédougou nag Kédougou yëpp benn route ne la am te mooy la route nationale biñ duggee Kédougou ba léegi ci rang-rang ak ci xeer bu euh, suuf su xonq si lañu ñu daw kon dafa am loo xam ne soxlawuñu ku ñu ko nettali La situation de Kédougou est dramatique, elle est inquiétante. Pourtant, amul région Sénégal bu ëpp potentiel Kédougou, il n'y a pas. pas. Peut-être soo nee Kédougou li jëm ci agriculture amul woon terre yu bëri à cause des montagnes parce que c'est une zone accidenté la seule zone presque montagneuse du Sénégal waaye amoon na fu nit ñi mën a bay te nit ñaa ngi fi doon bay ñu gis ni tey ces terres sont confisquées pour jox ko des entreprises minières je vais revenir sur ça ki fi nekkoon njiitu réew di président Macky Sall moom nag ca waxte la wone nag démb mu nekkee foofu ci Fatick di dëkkam bi nga xam ne fa la cosaanoo otoom da ko mujjee bàyyi dawee fi nga xam ne nag mooy ca dëkk ba ba ci stade bii di Massène Sène ay garde du corps am nag ñoo ko àndoon ak moom ñu daal di seetaan image yi Youssouf mi ak Sélé Mbaye ñoo fa nekkoon. parce ñëw naa sama dëkk. yàlla sunika gara gara fonna ngoro o fañen fañ fañ fañ tawa caca fañen fañen fañ fañ fañ tawa caca yaakaar naa ne borom dëkk bi na kon na gaa ñu dem toog te xam ni fii muus du fi doxantoo ba di fi nane ñeex Je n'ai pas pu résister de descendre de la voiture et de faire la course à pied avec vous. Alors, quand on me demande Mam Guénou, Lamtayo Fatick Guénoum, wane ngeen ko Fatick Guénoum kontaan naa a baax a baax a gis nañu nag campagne bi mu ubbeeg ba léegi euh, ci réseau internet di lu nekk ngi ci ginnaaw nag démb kuréel gi association islamique pour servir le soufisme tey jii nag njiital forum islamique pour la paix di Ahmed Saloum Dieng moom woon na rek sénégalais yi ñu gën a xool seen taxawaay. ñuy ñaan doomu sénégal yi ñu xam ni élection daana am ci jàmm jeex ci jàmm Sénégal continue di dund ci harmonie continuer di mën a sauvegarder image bu rafet bi nga xam ne moom am ci àddina bi mooy image yu bëggante jàppalante. dimbalente saafonte kon ñu ñaan doom yi réew mi ñu bañ a utiliser kër diine yi ci turu politique ndax ñiy wut politique ña ngi koy wut xam ngeen ne suñu soppe ba Cheikh Moustapha Sali waxoon na ni euh, ñun wutuñu wutuñu pouvoir suñ ko wutoon duñ ko joxe kon nag ginnaaw kër diine yi wutuñu pouvoir bokkuñ ci élection yi nañ leen ci génne te bàyyi euh, turu tarixa yi ñu jël di ko utiliser di ci ŋàññ ay kilifa ba di ci waxante loo xam ne sax léeg-léeg yow mi yow mi bokk ci tarixa sax nga ci sant loo xam ne waroo ko sentir ñu ñaan doomi réew mi daal ñu xam ni li ñu jëm benn fan na ci ci juróomi at te benn fan boobu warta ñaawal wala mu ñagasal at yii di ñëw xibaar yi ci gàttal dañu koy doree ak Idrissa Seck nag mi nekkoon foofu ci Sénégal oriental moom njiital Idy 2019 daat nay wax ci li nga xam ne moom la boo gisee mu def li ni mel ngir rek mën a jege askan wi daal xool li nga xam ne mooy seen ay jafe-jafe moom ñii nag ñu koy woowee ndaamal kajoor yooyu kàddu la wax fukki fan ak juróomeeli campagne bi ki nga xam ne nag mooy candidat El Hadj Issa moom nag mi ngi wëyandi ay doxam ci dëkk bi ak li ko wër dina dem fi nga xam ne mooy kër Momar Sarr Louga ak li ko wër ci dimanche ji ñu nekk Ousmane Sonko di njiital Sonko président moom nag mbébata mooy mu andi ay coppite li nga xam ne moo jëm ci wàllum jàngale beeg jàng bi langue bi nga xam ne mooy anglais moom jàpp na ni kenn mënu su koo bañ dañ ko war a dugal ci li nga xam ne mooy programme bi moom nag mi ngi waxee yooyu kàddu foofu ca Koumpentoum waaye it li jëm ci jàngum alxuraanu xale yi ci biir école yi moom mi nag bëgg na ci def ay jéego defar ay daara moderne nga daal xam ne ñëpp nañ fa dem jàng li nga xam ne mooy alxuraan nasaraan kii fi nekkoon inspecteur des impôts et domaines moom nag mi ngi wax fond bi nga xam ne bëgg na koo def rek ci jagleel ko jigéen ñi ba képp kuy defati rek test de paternité mu daal di lay yomb lii moo fi nekkoon xibaar yi ñeel campagne électorale bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax bàyyi leen ak suñu programme ci biir Dakaractu TV